compatriotes d'ici et de la ñaar fukki waxtu ak juróom ngir jàllale message à la nation mu doon lu sénégalais yi bari doon xaar njiitu réew mi Macky Sall daal di dellu si ci point yu bëri li ci mel ni violence yu ñu fi ne nemmeeku ci année bi wér gu yaram njàng meeg njàngale bi dem beeg dikki bi courant ndox ak li ni mel la loole nag kii di Bougane Gueye Dany doon ko teewee wante moom mu mel ni rek li ci bëri àndu si. wax na lépp waaye dafa fàtte wax ne. Euh, sénégalais yi sénégalais bi ci suuf góorlu bi ci suuf kiy taaba taaba ngir jox njabootam lu mu dunde ñooñu la Macky Sall fàtte te ñooñu ñoo ëpp ci réew mi li mu fi lim lépp ba ci wàllu santé wax na def nañu hôpitaux yi def nañu nangam def nañu nangam mais fàtte na ni am na ay villages yoo xam ne ay jigéen pour ñu mucc dañ leen di teg ci sare ñu daw ay kilomètres bu ñu demee fa ñuy dem du ñu sax am infirmière mais matron moo fay nekk wala bàjjanu gox mooy nekk foofu. président Macky Sall dellu si si li fi nguuram jot a liggéey gannaaw bi mu fi defee ñaari mandat li ci mel ni lu jëm ci wàllum transport bi dem beeg bi BRT bi ak lépp loo xamante ni def nañ ko si wàllum transport bi wante ba tey Bougane Gueye Dany moom li jàpp mooy nguuru Macky dañoo laj ci boor boobu léegi. ñaata nit ñooy jël terre vingt trois mille personnes ñoo koy jël aller retour chaque jour vingt trois mille personnes ñooy jël terre bi aller retour xaalis bi ci état di def subvention bi ci état di def ëpp na trois million jëm kaw alors que nit ki xiif ki nekk Ranérou quatre vingt quatre mille francs lañu koy jox ndimba donc lan lañu ci jublu terre bi. dimbali ay entreprise u France ay entreprise u tubaab la ñu ci jublu du leneen du dégg léegi nee na deuxième phase bi def nañ ci ñaata milliards alors que tey jii réhabilité woon chemin de fer dakaar jëm euh, Bamako ëpputoon njariñ Macky Sall doon amal discours am bi ju tax na mu xam le ni dina taxawal benn fondation bis bu fi jógee loole nag kii di Bougane Gueye Dany moom di ko xamal nii pare na ngir jox ko marché bu njëkk. day bàyyi bàyyi na bu bàyyee moom Macky Sall nee na day créer benn fondation boo xam ne day dox ci jàmm incha allah le 2 avril bu ñu defee passation de service bu ñu pare dinaa ko jox marché bu njëkk te marché boobu du dara lu may jubale sénégalais yi ci seen biir comme ci jàmm lay dox na fexe jubale sénégalais yi mu féewale ba noppi.